salaamaaleykum suñu mbokk internet Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois saa bu actualité bi tollee fii euh, naan mag tey ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Caaroy Azur tey moom dama déplacé wu ah, euh, sama émission ak ak jimboor yi euh, tàmm ngeen ko fi nga xamante ni moom mooy ci plateau ba Feeling Dakar ci émission na leer mais tey dañoo déplacé wu andi fi nga xamante ni moom mooy Caaroy Azur émission bi bala boobu dama koy jox mu ngi mbokk yi après moom di moom ci waxtaan bi jimboor yi maa lay nuyu di la ziar. moom waaw Abdou Khoudia maa ngi lay nuyu bu baax. Mhm. Euh, di nuyu téléspectateur u Feeling Dakar mhm. xam nga miin nañ ma miin naa leen mhm. wax dëgg yàlla di leen ñaanal képp ku nga xam ne abonné nga Feeling Dakar mhm. euh, soxla boo am bu të faju yal na ko yàlla saafara si barke Seydouna Muhammad may ñaanal sama grand Abdou Aziz Sylla bu baax Camara mbay aw mbu moom ku nekk xam ne ni sama magu bopp la. su si man rek rëkku ma daal. wax dëgg yàlla nit ku baax la. ak Aysatu Caat xam nga soxna May Jaxate Alimatu Koroya bàyyi ma kenn. Hmm. sama jigéen ñooñu ma leen di nuyu. Hmm. xam di nuyu bu baax euh, euh, euh, May Jàmme. Hmm. di nuyu bu baax naka la tuddati Mbengue Ndiaye maani Sëri Moussa maani yaa faatu sama rakk jooju xam nga baw ma kenn ak présidente groupe topp kaa Ami Ndiaye. ak pël GP. Hmm. ñu ngi koy nuyu moom tamit présidente groupe Sedi Buzz. Hmm. ma leen nuyu bu baax ñoom Souleymane Moussa Sarr ñu fa nekk Ndoura Sène hmm. xam nga ba fa nekk. xam nga bawuma kenn maa ngi nuyu ñëpp. waaw nuyu maam jaara xam nuyu keneen ki naka la tuddati xam nga dama ko fàtte. xaw ma naka laati kumba la xaw ma maa ngi koy nuyu daal. <laughs> di nuyu waa groupe ba yëpp. ok nagam nag. waaw maa ngi nii. yaa ngi cool maa ngi naka feeling Dakar. mi ngi noonu rek ngom sawa va. <laughs> noos booy. waaw nu mu demee. cool na yaa ngi taxaw. Mm. waaw jeex na. Jumbo yi dañ laa tey tey dañoo ñëw sa koñ. waaw ah. loo xamante ni c'est la première fois. Mm-hmm. ñu toog di waxtaan. Mm-hmm. kontaan naa ci ni mu la fekkee ni sa diwaan. non trop gis ngeen suñu affaire yi mi ngi nii quoi. ok yi sax doon nañ kalaame ni terrain basket bële. Mm-hmm. maire bi daf ko defar ba pare ni cinquante million la ci def. te bu dee yow seede nga xam nga lee moom matul sax trois millions <laughs> na yërëm ñii waaw wax dëgg yàlla xam nga lee weñ yële <laughs> xoola weñ ñi cinquante millions mu ne cinquante xam nga loolu bu leen ko def quoi wax dëgg yàlla parce que ba peña basket yele yàgg na fi mhm. peron bi amoon nañu peron xaw ma man lu mu fi def lii amul tirbin amul dara mhm. ndaan da fay-fay la rek <laughs> wax dëgg yàlla fu jot lonk d'accord waaw bu ko genre saay-saay jaaree dugg puuf yi mm. xam nga loolu dong la d'accord hmm. jubóor yi. Ah. Ah, du defarul dugg ah, ci waxtaan bi. Hmm. donc dañuy ñëw euh, un peu ci Moustapha Diakhaté. Hmm. donc li nga xamante ni génn na wax ko. ne képp nga xamante ni nii jël nga sa carte dugg ci urne jël photo euh, Ousmane Sonko dugg ko ci enveloppe bi. Euh, mun nañ ne kooku noonu da ngaa alku da Ah. donc Moustapha Diakhaté wax wax ju rëy bi nga xamante ne mën naa ni sénégalais la ko wax. Mhm. Euh, ba ñu euh, ba ñu arrêté woon ko ban également mi ngi euh, dañ ko placé ki nga xamante ni moom mooy mandat de dépôt. Mhm. ban jàkkaat aussi nga am ci loolu. waaw mais xam nga Moustapha Diakhaté dafa ni. Mhm. képp ku jël carte dugg si urne yi. sànni ko comme ça daal doo nit ku baax. da ngaa al ko da ngaa al ko. c'est man bu doon man la man bu dee ci bu dee xam nga déggin. déggin bokkul ak waxin mm-hmm. léeg-léeg xawla waxin boo ko waxee ku am dégg mm-hmm. tay jii xam nga mën na mën na jëriñ dara mm-hmm. xam nga moom dafa ne ku sànni ku jël carte sànni ko si urne yi xam nga euh, naka la tuddati euh, euh, doon nit ku baax waaw dangaa alku xam nga ak alku kooku yàlla moo ko xam te ak alku yàlla moo koy def léegi moom ban wax la bëgg a wax nan nga am yaakaar kenn moom la bëgg a wax. xam non Moustapha Diakhaté li mu bëgg a wax. mooy mi ngi ci xel mi de. Mhm. mais munu ko munu koo recadrer pour jox leen ko yéen seen nop hmm. dama da nga jàpp kenn am na nee nu mu ko doon waxee boo xamante ne amaana du ko àndal lu mu. bu amoon lu gën a sens lii da leen koy jox. ah bon déggoo ma. c'est que seen dégg. mais Jumbo lu raw lii. non waaw waaw waaw non seen dégg seen dégg xam nga tey. déggi dégg dafa am solo ci nit. Mhm. dafa am ñoo xam ne dégguñ dégguñu moom ñaata yoon la wax ba mu waxee yonent bi lam ko wax. waaw est-ce que teñ nañ ko. déedéet. Hmm? Hmm. léegi. Mhm. yaay wax ñun ñëpp. Mhm. ñu saaga ñu ak ñu saaga yonent bi ban ban lañ war a gën a jóg. yonent bi xanaa. léegi kan moo réglé bii. kan moo réglé problème bi kooku du régler problème mu yonent bi ki régler problème bi du régler problème mu Seydouna Mouhamad. kon da nga jàpp ne arrestation Moustapha Diakhaté ca bi mu waxee ci Seydouna Mouhamad. dégguloo ma xam nga yàgg na wax. mais xam nga lan moo ma ci merloo man. Mhm. xam nga Moustapha Diakhaté jaaxalu ma ñi Moustapha Diakhaté jaaxal ñoo ma jaaxal mais dama ni. Mhm. ki régler problème bi du régler problème mu yonent bi waxal ma ko ko. Mhm. oui. ci wax yonent bi lu rëy mu ñëw wax leen ko yéen. kenn ba pare daf ko wax mbooloo mais kenn nit a ko réglé kan la. Mhm. kan ba pare mhm. kan la kan la waxu Moustapha jaxate bi concerné kan la kan réew mi xanaa non non Moustapha Diakhaté bu ne Sénégalais yi ko faara Moustapha jaxate bu doon réewam day def benn impact ba mu dalee wax ba léegi yàgg na lu ne wax na ko mhm. mais li mu bëgg moom ngeen ko defal ni da jàpp ne dafa bëgg non xam nga da ngeen a dégg paa bi mu ne moom pare na pour joxe bakkanam tout kon waru leen a mën a waru leen ko war a nangul xaroom parce que citoyen la léegi ni mu defoon ba doon ba bokkoon ci nitu valeur yi comme mi ngi dugg ci beneen nit est-ce que mënuñu ko dimbale pour mu dellu si li mu newoon lan moo tax mu bëgg a dee keroog nee naa la am na politiciens yoo xam ne bu ñu sañoon tremblement de terre am hmm. yow laa ko wax parce que ñàkk gi ñu ñàkk am na fu mu leen tollu mais lii bu mu leen naqari bu ndox tuuroo bul bul bul bul jarul an baax hmm. rooti waat ñoom nag rooti lañ munut lan moo leen naqari ok ki faj lii. Mhm. mani du faj problème yonent bi. d' accord pour muy euh, leer. d' accord mais xaaral mais paa bi yàgg naa wax waxu daf. d' accord kilifa gu mel ni. Euh, Moustapha Diakhaté. waaw est ce que war nañ ko di xaar a chaque fois muy génn di wax yoo xamante ne bu waxee loxo day daal gémmiñ. waa léegi xam nga dama ne woon. nañ euh, réew mi bu ñu fi bëggee régler mbir. waaw bu ñu régler ki wax wax ji nañu régler kii publier wax yi. léegi wax yi jeex. loolu nga waxoon sax maam Matar Gueye Jamra. maam Matar Gueye Jamra jox naa ko conseil bi non maam kooku moom dama pare moom. Eh. comprendre nga ni mu la wax. voilà waxoon moom laa woo sa kanam. Mhm. maam Matar Gueye Jamra. Mhm. ma ne ko mun naa réglé cas yu yu ñuy def nii wax yu bon yi. Mhm. mu ne ma noo koy réglé ma ne ko dañ dañuy fexe ba nga xam ni. ki wax wax ji duñ jarul ñu koy pelante ki publier la ñuy pelante léegi wax yi jeex. léegi euh, Moustapha Diakhaté dafa doon dem di wax. kan la doon waxal. ñi koy woo tamit wax jooju lañ soxla ci moom. mu wax loo mm, xamante wax mais lu xam nga xoola li mu wax. waaw waxal déggin bi rëy na. na jàpp ni rëyul quoi. waaye saaga yonent bi gën a rëy nee ma déggin bi rëy na parce que bu den paa bi ñu ngi koy doog a def. Mm-hmm. soo ma laajee dama naan laa dama naan la wax ji rëy na. Mm-hmm. mais dafa njëkk a wax ci yonent bi. Mm-hmm. doog a wax lii lii rëyul waxal déggin bi rëy na. ci yéen dégg bële nag rëyul ci yéen. d'accord réyul mhm. réyul ci yéen ba pare ki réglé kaa bi du réglé kaawu yonent bi waxal ma ko kooku d'accord waaw euh, ñoom euh, ñaar a yem rek d'accord ñu placé ko euh, garde à vue donc yow ban jàng nga ci am est-ce que mun nga xaar génnam wala hmm. wala da nga yàq mais bu doon man la ñu bàyyi ko mu dem mais Jimbori yoon def liggéeyam nga ne mu nekkoon yow la nga bàyyi booy xam nga yoon def liggéeyam li mu wax noonu mhm. léegi kan la concerné wax ma ko sénégalais yëpp la ah ñaata nit ñoo fi wax lu gën a rëy loolu waxal. Mhm. wax yu gën a rëy yooyu wax nañ ko fi. Mhm. waxal rek. Mhm. waaw waxal rek. am na ku ku defe naa wax am na ku nekk ku contre Sonko sa nday wax yooyu moo war a génn si politique. xanaa am loo même euh, naka. ñoom coalition ñoom bugaan bi nuñ tudd. Euh, sàmm sa kàddu. xam nga lu leen daaneel. mooy bi ñuy tontonteeg Ousmane Sonko lañ perte. kon da jàpp ni politique amatul non Ousmane da leen a dugal si benn bataille psychologique boo xam ne ñoom comprendre ko si lañ daanu parce que booy seet fépp fo fépp foo yaakaar xoola fépp foo yaakaar rek ñoom dem nañ fa mais ku niñ doon waxante noonu mhm. Ousmane daf leen gën a muus gën leen mun communication donte communication bi ñoom d'accorduñ si ñoom tamit seen bos kenn d'accordu si te fiñ tontoo moo baaxut d'accord dégguloo ma d'accord lu keneen ki daf ko bàyyi ba campagne bi def ñetti fan mu kil ko mooy Tahirou Sarr. Mhm. ñetti fan la ko dagg bopp. waxaat rek. d' accord eh, waaw yow. d' accord jubóoy loolu am na solo. Ah, donc man su ma déggee sax ñaata wax la fi génn wax ay wax. su ma déggee sax paa bi yow daga ne nañ ko bàyyi. non boo ko téyee kan nga ko téyeel laala la. sénégalais aussi. sénégalais nga ko téyeel. bien sûr ki rendi Aziz Dabala moom kan la lu tax téyewuñ ko. ba léegi ñëw àtte loolu. waaw ah, loolu dëgg la moom. waaw ki Moustapha Diakhaté jàpp bi nii ki rendi Aziz Dabala ñu ñëw wax ñu ko moo gën a jaadu bu dee yoon a ngi fi Mhm. yow dooma may ki fekk nit këram rendi ko mënoo leen fexe ba mu leer ngeen jàpp paa bi waxi kese est lu leen leer ni paa bi dafa dof dimbali paa bi toog yow man mii mun naa xëy dof ngom mun na xëy dof Moustapha dafa dof loolu nga bëgg man mun naa xëy dof <laughs> barki laa ilaha illallah ngom mii mun comme ni muy ñëwee Feeling Dakar di wax lu naay ngom mun na xëy dof di leen wax waxu dof bala ngeen a comprendre ngom dof la ci xam-xam bi mu yor. fekk lor na lu bëri. nga lan. kon da nga jàpp ne yow am nga xel kenn. dégguloo ma paa bi dafa am soog ci bopp bi. lan mooy soog bi lan nga yaakaar bi mooy yaakaar gu tas. boo ma dóoroon tey ba may bëgg dee doo ma bàyyi ma saaga leen ndey. Hmm. mu saaga leen ndey ñoom dóor nañ ko mu saaga nday doo leen ko bàyyi saaga ndey. yaakaar rek. d'accord jubóor yi. Ah. yéen saaga nday yéen a ngi ko dóor ngeen paa bi daan du saagay nday day saagay nday nii. d'accord day saaga nday nii. bal lañ biñ follee Ablaye Wade Ablaye sax nga baal ma saaga na fi nday nee na Macky Sall du fay salaire yi saaga nday la. d' accord da koo saaga ndey koo dégguloo. <laughs> d' accord jiw Sénégal loolu ji koy sénégalais la gisoo yow mii mos na am ku la ëpp doole duma la nga saaga ndeyam. <laughs> waaw waxal rek. mbaa yow paa bi moom paa bi yéen tamit paa bi. d' accord paa bi nekkatul de. Ah, da ngeen ko war a yërëm ngeen jëlaat ko di ko teg si palaat. Hmm. te paa bi ñaata at lam dañ ko garde à vue de jamono ji. nga ni dañ ko garde à vue de. waaw dama ni paa bii nga jël ko tëjal ñu ko ban njëriñ la am ba pare politiciens yu màggat yëpp fooli nañ leen ñu ndaw ñu ñoo fi nekk loo koy doyeeti moom ngay doyee paa bi. da nga jàpp ni jàpp ni ko jàpp mun dañ ko defal lum. tey jii ni ko ay doomam di muñalee noonu la ko ñoom Sonko war a muñalee seen baay la. Mm-hmm. ku si nekk sa baay wax na la wax bii nga baay mu jàll. paa bi nañ ko jàppee baay bañ ko jàppee moroom baay man baay laa ko jàppee waxam. Mm-hmm. du ko am loolu léeg-léeg ma jàpp ko nii mu wax rek ma ree jàll jàpp comme sam papa bu ma waxoon loolu. Mm-hmm. yéen tamit. paa bi waxuma la baay mais maam day bànneexu la maam la. d'accord waaye leen kii mu dem ñibbi waa yéen yéen tamit. ok ba coow lu jarut coow. d'accord paa jàpp ko mu mel ni ku jàpp Basir jamaay Faye wala Ousmane Sonko. Mhm. paa bi ban ban ban ban njëriñ lay defal sénégalais yi ban njëriñ. dafa am wax bi nga xam du avocat du député du dara. nekkatul leen ka mu àndaloon dem na moom léegi li mu dese mooy wër ci télé yi mais may leen ko wër ci télé yi mbaa ngeen ubbil ko télé rek. d'accord moom tax mais na télé na amoon na télé Moustapha Diakhaté waa amoon na tele nga wax amatu ko paa bi xam nga moom tey bu defoon wayu way ba waaja doon way mhm. soo ñu joxoon la ñu yoroon dootuñu def nanu defoon mhm. xam nga mhm. waaw paa bi nag la mu yoroon mënatu cee jot doo leen ko bàyyi muy saaga d' accord waxa rek euh, Jimbori am na am na solo bu baax am na ñu nekk Europe di saaga nday ñu ne fi di jiiñaate yaay jàmbur yi caga ñu ngi fi di génne ay audio jàmbur yooyu moo gën a garaaw paa bi man xam nga lan moo tax waxuma la li mu wax garaawul de. Mhm. mais li mu wax yonent bi gën a rëy te yéen génnu leen réglé ko mais yéen kan ngeen gëm. vraiment ah xanaa non vraiment yéen seen gëm gàddaay na de d'accord naa loolu seen gëm gàddaay na bu yàgg yéen bu doon l'islam euh, groupe la bàyyi ngeen bu yàgg te yogoo leen ko mhm. d'accord euh, Jumbo loolu am na solo bu baax a baax bi dàppam ngaa euh, nday dara ok may wax ngeen tee koo doxi paa bi daa amati fu mu doxati ku ko nangoo tee embauché <laughs> yéen ki ngeen tëj xam ngeen booy tëj ka ngay tëj benn ngom boo xam ne mun nañ ko embauché am na doole xal ndaw la. mun na jëriñ dara mais yow nga tëj ko xam ne maami ngom nga jàpp ko tëj. Mm-hmm. ko xam ne nii bu demee di embauché duñ embauché bu demee Senelec du rang. Mm-hmm. yéen xoola bu leen ñu fontoo waaye ah yéen tam ba leen dem. d' accord yéen euh, màggat gii. Jimbori loolu am na solo dañuy dañuy jóge foofu dem fi nga xamante ni mooy keroog euh, amaana dañoo jóge ci plateau bi rek ah doo information boobu muy suñu émission ne leer bi ñuy def par mercredi Euh, ci mariage Bijou ngoone euh, donc ban jàngat nga ci am. non man Bijou Ngoné ban jàngat bi ma ci am mooy. Mhm. Bijou si boppam doon na wax ak Bijou Ngoné yéen ko yéen ko déggut. nan kon na la doon waxee ak Bijou Ngoné. dafa def benn ojo mhm. def benn vidéo. Mhm. ne Nabou Dash ndekete wax na dëgg. Ah, seetaanoo ko bien moo doon wax ak Bijou Ngoné. xanaa xamoo loolu. moom si boppam dafa dem ba moom. mu xaw a am kersaay boppam. dem di wax ak boppam. dafa xam am am am kees say wax. dafa vidéo bi demal nga seetaan ko nga xool kanamu femme bi. Mhm. gëm naa ni waa ji su ko jàppalee si loxoom lay dee. du fa jógewaat. Amina Poté da waxoon na ko te ba tey mi ngi toog. waaw non man moom ak Amina Poté bokkuñ sax ba tey. Hmm. bokkuñ de. ah mais du benn la xam nga sëy nii xam nga sëy waaw waaw du benn quoi parce que kee am na sëy boo xam ne dafa dem ba war a dem sëy xaw ma kooku di ko indil kii mu jëlaat lépp delloo ko ñëwaat toog tout à mais ñi nga xam ne dañuy dem ba jeex dem di ñibbi di mhm. dem di ñibbi mhm. ñu gis ni ñii lan mooy lan mooy problème bi mooy wax bi mhm. en tout cas dama lay wax ne la pour man laa wax de bisu ngoone kii def émission bi moo kan ñoo koy def. Big Taf. Big mhm. léegi pourquoi am na am na émission bu ñu mujjee def. waaw Big di ko wax ci affaire mariage mu ne ko lool bu ko wax. waaw waaw mais Big xanaa la bisu ngoone. waaw émission émission bi muy apporté fii ci Sénégal ban émission la. confrontation. mooy pour wax nit ki ne artiste bu juum. Mhm. mu indi la artiste bu foowee sa sëy. Mhm. mu indi la du noonu. booy waxaaleel ñee ñu wàññi. xam nga lu ma la wax. Mm-hmm. Mm-hmm. du noonu. Mm-hmm. léegi biisu ngoone moom. ban émission bi muy def. daf ko def pour liggéeyal senegal wala daf ko def pour liggéeyal boppam wala daf ko def pour liggéeyal kan. lan lan am yaakaar noonu. non dama am yaakaar ni moom li muy def noon war na mën a def benn émission boo xam ne day jox big big taf invité ko moom ñu wax ci kaam. déggoo bi big taf na ko sama daa am na loolu sama. déggloo ma émission bi émission wu ngoone Ngoné mooy réclamer Bijou Ngoné nii. xam nga moom moo daan woo gars yi ñu ñëw di def émission mooy moom émission bi moo yuuxu Bijou Ngoné nee na Bijou na ñëw si émission bi. d'accord parce que xam nga lan laa lay wax. Mhm. bu dul woon succès ak xaalis. Mhm. est-ce que Bijou mun na tegale sa yii mu tegale. Mhm. c'est que ma wax la benn affaire est-ce que xam nga succès ak xaalis. day nëbb lu bëri lu ñaaw. mais bis bu succès jeexee xaalis jeex. ba loolu des fi nga xam ne lii lu ñaaw la. d'accord lan nga ba pare ok lan nga xëy digal ci ci ci bi. non xam nga lu may digal Bijou Ngoné. mooy magum jëmm la instant bi mën na maye boppam moom. Mhm. léegi bu bu la leeree ni yow da ngay tànn jëkkër. Mhm. di ko bàyyi. Mhm. pourquoi mënoo toog tànn ko xam ne di nga fa toog. biir de nee na ci yàgg. waaye doo ma toog waaye xoolal ngoox benn yoon tayok ngoox ngoox yaaka tay bu ah, ma nee na biir na ci yàgg de jumboori. Abdou yow nag Abdou nag yaa may bugg a ah, ci yàgg. waaw mais boo tànk sénégalais baatu ñeex sotti ci ñeex ci cere ji. <laughs> boo tànkaatee même ñeex la ñaata yoon la ñu wax wax boobu xanaa am loo waxu damay toog si sëy amut. Mhm. sëy li ci li la ci dëj looy jëf la. tout à fait. Mhm. dégg naa eh, yow wax ju bëri du sëy de. mbatti mbatt mel ni biram mbaf la ba jéwalu alaaxira hmm. boo yeggee si sëy bi di nga xam ne yi nga doon wax yëpp signature la d' accord ñu naan moroom doomam moo ko takk ku mu takk mun na koo jur lool tamit sénégalais yi nañu bàyyi di wax loolu non man kay li ma la mën a wax mooy célébrité yi nekk fii waaw ñi ñu bëgg bëgg ñu leen ñu leen bëgg bëgg ñu ñooñu mais jimbo li nga wax ni doy na de doo ma déglu ñii ñoom ñii waaw am na ñu leen bëgg bëgg ñu ñu bëgg bëgg ñu leen Mhm. ku ci siiw ñaari yoon boo xaree xol bi da nga siy fekk laa lay wax nii da nga siy fekk Ousmane Sonko wala Basir Diomaye te boo xaree xol Ousmane bëggu leen mhm. te boo xaree xol ngom ngom bëgg na leen bëgguñu ngom tout à fait bu leen ko ngom waxee sax ñu dóor ko mbéj tam ñu noqulu ko mhm. naan dafa réew d' accord waxal rek d' accord waaw ah, moo tax léeg-léeg da ngay gis borom alal joo xam day ñëw jaar seen kaw jàll parce que day ñëw rek exploité la dox doxam dem yoonam ok ñii ñoo war a seen ñu ñu méngool ñu dem ak ñoom. Mhm. gis nga succès. Mhm. ak sëy du benn sëy. Mhm. ñoom dañuy jël seen succès. yéegal ci seen niveau sëy. jombaleel seen bopp Jimbori jombaleel seen bopp Abdou Khoudia. jombaleel seen bopp Ngom jombaleel seen bopp Bamba Junior ñoom la ñuy def. tout à fait. ñoom bu ñu si bëri ñu siiw nii. yàlla bu ñu pakasalu juum fak euh, jënd parfum wu cent mille. cent mille francs. yee yàlla bu ñu juum avance benn oto gain. benn oto tout à fait ñu laal leen jasineer. Mhm. c'est fini du ñu xool sax. li daay wal moo yàlla bu yónnee malaaka sax ñu ne ko xam nga naan lan. xamee wuñ buñ bojog buñ boxam de. Mhm. gis nga succès. Mhm. teg ko nale. waaw parce que fii benn star moo fi am waxul télé génnul rajo. te ba tey yéen a ngi wax ci moom. mooy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi cuku cuku ji. Mm-hmm. nga xam ni seen i wax du waxul dara ay ajoté la man mii sax boo ma gëjee jël léegi ma xew yi gëj leen a ñëw rek ma pare ci kenn du wax dañ naan waajooj daan wax tam bari wax rek mm-hmm. ah te gémmiñ gi yaar <laughs> ah, te boo xoolee mu mel ne ku wan ndox mu tàng waajooju noonu nangam nangam jeex na mais bu ma defee ni maa moom réew mi fu ne ma mbandax mbandax yi jom fa mais nit ki da ngay nekk nit quoi. way dëtt mbaa nga way deret. d' accord rek ah, d' accord. Euh, ñu invité ñu invité tey Wally Seck dañ ko invité lan lañ mën a xaar. ñu invité. waaw confrontation tey 2S Wally Seck lañ invité. kon kon biisu ngoon. waaw sa xarit. waaw non Wally moom. boo ko mën a ci loolu. non ñoom Wally moo leen may bës dafa bëgg a nëbb liñ koy wax rek moo tax mu woo Wally ah loolu la rek waaw waaw. kon émission confrontation bi tey dafa bëgg na bu coowul mariage am loolu nga jàpp ko bëgg na bu mais bu woowoon ku sens xam nga waali moom du wax lu tegginawul. Hmm. mais bu woowoon keneen dina ko defanteeg moom de. te hmm. dina ko yóbbul yóbbante yi de. am na ñu bëri ñu yóbbante si bisu ngoone ah. Hmm, naan xam nga lu ñu yóbbante si moom. waaw mooy ni comme dafa dem ba siiw te xale yi dañ koy seetaan. est ce que est ce que mënut a baaxoo mu rafetal image bi. pour xale yuy roy ci moom bañ a jël lii def def ko sabin. image am dafa yàqu. bisu déglul waxuma yàqu na de. dama ni. moom. waaw xam nga ku ñuy teg bët. di la gis. Mhm. am na xale yu lay seetaan. loo def ñu roy ko ci yow. Mhm. c'est que ndax doo xam nga ndax du ko peinture rafetal ab bi mu rafet. mais pas yow. Mhm. dem tey nga sëy tay tas suba. sëy tay tas suba. Mhm. ba pare gaa yu bëri dañuy bàkkaar sëy yi fi tas yëpp yàlla lañ ko jiiñ. yàlla daal mooy tas sëy yi. yàllaa ko dogal yàlla moo ni kénta laay li nga sonne laa lay dimbalee man yàlla. Mhm. kon kooku day tas sa sëy. waxal. Mhm. góor. naa la wax benn baat benn affaire. ak góor gu mu mën di doon. est-ce xam nga góor saa boo jëlee baatam at attan na laa jox ba kanam. baat loo jël ci moom. ba mu des baatam mun na la ko bàyyee. tout à fait góor bu ñëwee nga bëgg a jël baatam bëgg loo wax mu def ko bu yàggee doo yàgg góor googu. d'accord ñoom ñii nañ góorgóorlu te xam ne ay jigéen lañ. Mhm. ay nitu kese lañ. Mhm. waxuma la esaar yii nii nga xam ni da ngay wax nii rek problème mi jàmbur. siiw ci <laughs> xam nga lu ma nga xam ne laaxira sax boo demee dañ lay tegalaat.